ci arrêté ministériel bi génne ñu teg ci déclaration wu euh, ministre de l'industrie et du commerce monsieur Serigne Gueye Diop syndicat professionnel des industries du Sénégal muy mbootaayu industriel yi dafa o euh, association wu meñe yi pour euh, jokkook ñoom ci kaw ñaanu président bi di añ bu CNP ñu jéem a xool lan mooy solution yi nga xam ne ne mooy moo gënal ñëpp moo gën ci ñëpp pour que tamit ñu mën a delluwaat ci ay négociation lu mu gën a gaawee ci kaw loolu nag am waxtaan nañ ci d'accord nañ ci don njëkk bi moo doon continuer taalaat usines yi liggéeyaat te euh, toog ci taalu négociation bi maanaam pour wax ci lépp loo xam ne ne mu ngi jëm ci impactu nouvelle réglementation du prix bi ak lépp mu mën a jur ci këru liggéeyukaay mu ngoog finalement Mamadou Fofana 150 yi ñoom ñëpp mujj nañ ci d'accord waaw euh, mujj nañ ci d'accord parce que ay menaces jóg na mhm. ne leen muy boo deful li nga xam ne loolu la état bi bëgg jàpp leen ne ñu nit dinañ ut pexe yoo xamante ne nii kat saway mhm. dinañ def loo xamante ne nii maanaam dinañ leen indil ay jafe-jafe à travers peut-être mais xam nga man sama waxu dem mooy sama waxu tey mhm. fu ñu nekkee dinaan wéy nañu subventionné cinquante trois milliards pour dindi juróomi dërëm ci mburu mi mais je di amoon na leneen lu ko gën a doon priorité parce que mburu lekk ko ñàkk ko lekk taxul nga faatu mais fii boo fajul da ngay faatu moom kay balaa ngay lekk mburu day fekk nga wér sax kon donc buy waxtaan amee tey bay di añ dox ci ba ñu jàpp ne ne kat war nañ mën a nangu loolu en attendant ñu waxtaan waxtaanaat mais man ñaar laa jàpp moo ci mën a am moo di soit l' état va continuer de subventionner wala day yokk subvention bi wala ñii dinañ dem ne waa d'accord nañ ci dem bu ñu demee ba mënatuñ ñu arrêté dàq ña fa nekkoon ñëpp doon liggéey. ah oui bien sûr parce que entreprise bu liggéeyul jaay di perte amul fen loolu moom mooy dëgg am amul lu ñuy voile wu la face dama ne waxtaanee ñaar moo ci am. état day dimbali. nangu société minoterie yooyu subventionné leen waat encore. wala wa ilaa ñii d'accord ci loolu bu ñu demee ba mënatuñ ne mënatuñ ne kàpp ràpp tëj. ña fa nekk ñu dàq leen ñeneen ñi dem chômage et loolu c'est pas souhaitable lépp am solo tey mooy état bi ak autorité yu bees yi moom mooy ñu préserver justement ces emplois là sinon seen kaw lay daanu si waat donc loolu dafa nekk loo xam te nii lu am solo la mais dama ne encore 53 milliards waruñu ko jël di ko dugal ci loo xamante ne nii pour wàññi juróomi dërëm la et eh, boobu bu ñuy wax sax 53 milliards ci quinze francs yi la donc bu ñu ci dollee encore dix francs war ko subventionné waat encore cela veut dire que dina ko ëpp au moment où am nañu ay déficit en structure euh, sanitaire am nañ ay problème ci yeneen ak yeneen yoo xamante ni cette cette manne financière là mënoon nañ ko réinjecter vers li nga xamante ne nii moom mooy gën a sonal askan wi moom mooy gën a amal solo askan wi mu jëm ci seen wàllum survie mm-hmm. beneen bi moo di ne man gëw ma ay wàllum woy nañuy menace ak yooyu ñoom seen xam nga mesure bu ñu confondre la xew ci transporteur ak lii xew fii ci affaire mburu bokkul transporteurs yi nekkul ne parce que dañ leen wàññil wàññiwuñu demeewul noonu de. dañoo yokk paas ci loo xam ne teguwul ci yoon. mais ñii nag ñoom dañoo ne ñoom lii mënuñu jaay di perte. kon kay xel am na la mu nangu ak lu xel nanguwul défendre ma kenn parce que jàpp naa ne benn wàññ wàññite bu nekk dafa nekk loo xam ne lu am solo. mais tamit lépp ci waxtaan lay tukkee. ñu xool li nga xam ne moom moo gën moo gën kat ñuy menacé fii nii après ñeneen ñi dem tëj si ay sénégalais retrouvé wu nekk dans le subo su boobaa amatul li nga xam ne moom mooy njëriñ pour yenn sénégalais yi nañ lekk mburu ci loo xam ne ils peuvent s'en bi nga xam ne sumb nañu ko dinañ jël en compte euh, paramètres yooyu yëpp ngir kenn bañ see loru euh, euh, Simon Pierre Faye ba tey ci njëgal mburu moom yi ak wàññi teg gi ban impact la mën a andi lu mu ci manti doon doxantu nañu si mbedd Ndakaaru am ay borom kër yi ñu laaj te li ñu xam le moo di dañuy xaar ba weer wi dee ñu mën a xam ndax loolee def na impact ba ñu doon xaar am déet rawatina ci mbirum euh, ceeb beex euh, duulin ji am na si nag ay jaaykat yu nga xam ne bañ nañu appliquer lu ni mel ñoom ci boppam ñu ngi koy ñaawlu mu Diallo Mamadou Barxam Doy ginnaaw gouvernement bi jëlee ndogal ngir wàññi dund bi ñu bëri ci askan wi nag dañoo seetlu ne am na ci yeneen produit wàññi nañu. fooguma marché ndax hôpital laa jëm waaye man marché laa donc yëg nga naa ko. waaw damay dem marché kay damay ndugg. mais bi nga demee ndugg ji tey noo gisee mbir mi. <laughs> jëndoo <laughs> jënd ceeb waaye sama góor gi nee na moom day xaar ba affaire bi wàññeeku door a jënd. kii nag nekk borom njaboot moom tamit loolu la constaté. naa ko parce que bi ma xëyee suba jënd naa mburu bi ma jëndee mburu maa ngi doon jëndee cent soixante quinze ñu ngi ma jaayee cent cinquante. waaye nag ñoom dañoo gis ne ngir ñu mun a régler problème dund gi il faut ñu béy. géej gi di dem kon bu ñu wemee fii ñu béy ñu fay leen Europe lu ñu fay defi ah béy dañ koy def kon bu ñu ko defee suñu dëkk fii kay suñu dëkk développé ñun ñëpp ñu xaj ci seen ndey ak seen bàyyi xaj ci am de pare ma bàyyi nag moom mun maa bay nag mag laa ah. waaye bu ñu ma tegee fii mën naa peese kilo yi di dekk <laughs> li ñuy wax daal sunu njiit yi mooy ñu dimbali ñu ci mbay mi. njëgum ceeb bi nag ba léegi daal xamuñu ci dara te ñu bari ci ñoom fendi du mois bi la ñuy xaar ngir xool est-ce que yi wàññi nañu ko. finalement euh, stratégie bu état bi mettre la pression bi mujj naa jàll. waaw mujjee naa jàll parce que état bi tamit dafa am doole dafa bëri doole. Mhm. war nañoo toll foo xam ne li mu bëgg moom mooy am. c'est vrai que bras de fer engagé woon nañ ko wala meññee ñoo engage bras de fer mais toujours est-il que nañu continuer di waxtaan parce que lii tamit du ñëpp ci war a mën a loru ku ci nekk def cee war a mën gañe à commencer par ñun nii ñëpp ñi nga xam ne ay consommateurs lañu. am na ci ñoo xam ne bu ñu xëyee boutique ba la ñu lijjante seen ndékki seen i añ également boutique ba la ba ci à la reer bi nga xam ne moom la ñenn ñi di foraatu ci boutique yi ak ci mbedd yi donc foofu la impact bi ñu war ko mën a natt dëgg-dëgg mais nag gis nga ci biiru reportage bi am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen ne euh, pour peut-être ceeb bi comme ñi tàmm jënd fin ceeb saaku ñëw samp ko seen kër xëy na fin bi ci la ñuy xam ndax dëgg-dëgg am na lu mu lu mu leen jural ci njëriñ wala la ñu doon dépensé wàññeeku na wala wàññeekuwul mais ñii nga xam ne ñooy jënd au jour le jour xëy na euh, weccet wu sew lañ ciy dese parce que mburu mi juróomi dërëm la dëwlin bi litre bi euh, euh, mille francs la am na ñu ko doon jaay 1200 1300 xëy na foofu tamit dina dina xaw a tane tuuti mais ma mhm. waxaat ko njëkk yi nga xam ne moom la ñuy wàññi ma mbay nañu comprendre ne pour dakaar la dakaar gese la mhm. alors que Sénégal du dakaar Sénégal yeneen diiwaan la dakaar xëy na ñu bëri fii la ñu nekk di lijjanti di taaba taaba mais dégg nga ministre bi keroog la mu wax mooy conseil régional de la consommation comme ni mu amoon conseil national désidé ne ndakaaru njëkk yi la ñuy jaayee région bu ne léegi à partir de prix yi nga xam ne moom la ñu fixé à Dakar nga teg ci transport bi génne différentiel bi war a mën a calculer bénéfice bi nga xam ne moom la ñuy am donc calculer ne amaana mburu mi bu wàññeekoo juróomi dërëm ndakaaru mën na tege benn dërëm wala ñaar dërëm pour peut waa Diourbel pour Tambacounda et gis nañu ne ci diiwaan yi xëy na foofu tamit dund gi ni mu méttee Ndakaaru mais noonu la gën a méttee foofu parce que nit ñi tam dañuy xëy di lijjanti boo waxee ñu ne la dëkk bi amul xaalis kon balaa ñuy mën a xam dëgg-dëgg impact bi pour man nañu demaat tuuti ba ci kanam ñu doog a xool réellement dëgg-dëgg fan la yëf yi toll et puis consommateurs yi wax nañ ko nañu élargir assiette produit yi nga xam ne moom la ñu wàññi parce que fii ceeb brisé ordinaire bi la am na ñoo xam ne beneen xeetu ceeb la ñuy jënd kon ceeb boobu wàññeekuwul dëwlin huile de palme raffinée bi nekk ci bidon vingt litre yi moom la ñu wàññi yeneen xeetu dëwlin yi kon wàññeekuwul am na ñu koy jënd Euh, suukar si sucre cristallisé bi am na yeneen sucre yoo xam ne mi ngi fi ñeneen yi moom lañuy jël kon yooyu wàññeekuwul kon war nañoo mën a fexe yaatal prix euh, produit yi nga xam ne moom la ñu wàññi ba mu gën a bëri bu boobaa impact bi ci la koy borom kër gi di war a mën a sentir dëgg-dëgg mais tant que wuñu foofu pour man euh, lii nii mën na juraat yeneen inflation ci diggante bi tant que amul dinañu demaat ci beneen situation bu ñu war a mën a réglé waat euh, ay fan yi di ñëw. jaajëf Simon Pierre Faye.